tax ñuy jaar mu di sàkku ci yow ay ñaan tey daal am naa lu ma naqal trop trop trop trop trop pourtant nag noonu laa amee tey yéene koor woor démb sama koor lu ñàkk faydaa koy la yàq caakiri laa lekk tey tamit c'est la même chose tey moom nag moom tey amoon naa koor lool sax bisu tey bi nag moom ah metti na ma trop tey moom seetaan ëpp na ma doole iblis dugg na mais dama fàtte xaw ma kañ laay miin koor gi man ñaari fanu koor tey nga am ci ndog ndog oh oh am naa lu ma naqari waay fii xaaral ma xool kan moo fi ma yónni ko man fi mu ma wër lu ma lekk rek xam naa ne ah fa amita ku ne foofu ci yéen ah ay ñëwal nii waay ma gis la waay waaw xadi ay egsil dama laa woo tooguma damaa juut <laughs> exil. <laughs> yaa ngi si jàmm. maa ngi am jàmm baax. gi jàpp na la de lii lan la oh, hmm. ma tey tey tey tey tey tey tey sama papa. ah lu tax lu tax sama papa. dama laa bëgg a yónni nga baal ma nag xam naa da ngaa woor maa ngi jéggalu nag. ah kenn du yónni doomam muy bañ loolu du dara maa waaw maa ngi jéggalu bu wér nag. waaw euh, dama bëgg. comme fi weeru koor la kër yi moom fi mu ne kenn kër mun a togg añ nga dem la fee si restaurant bi nga jëndaloo foofu palaatu mboroxe la bu 500. pera bu wóoroo. xadi fi mu ne loolu nga ma fekk ma wax ba dee man damaa fa juum lekk mooy seen xaw ma glace gi ngeen desaloon fii démb seen xëdd man daal naka laa jógee ne yoot daw jël kat glacière bi naana naana naan ba sama biir ne kook man fàtte naa ne sa koor laa ne man daal maa ñëw ba toog fii rek sama xel la yar ci weeru koor laa ne mais def naa erreur bu rëy. ah père comme maanaam daal ni ma déggee ni nga wax da nga juum daal. dama juum dog sama koor. waa léegi si diggante papa ak doom ñu waxtaan yow léegi yow da nga juum ci koor gi. waaw léegi lan moo tax nga bugg a jënd plaatu mboroxe lekk. Ah, ku juum lekk rek mënut maa continuer. déedéet soo juumee lekk. Mhm. ah mm. da ngay sa koor yàlla du la toppee foofu dara da koy continuer ba heure dog jot nga dog mais da beneen beneen jour après da nga koy fay bor lay doon maanaam dégguma la comme ni ma juumee tey nii mun nga koo continuer ma ma ma arrêté lekk continuer waaw bu lekkaat dara comme que da nga juum naan ndox waaw léegi bu lekkaat da ngay continuer koor gi ba ba koor gi jeex waaw ba koor gi ba ah, koor gi jeex bu weeru koor gi jeex waaw bor lay doon bor lay doon waaw bu weeru koor gi jeexee maa koy fay waaw jërëjëf bébé Khady jërëjëf tey nee naa bébé Khady yaa ngi dégg gone ngeen gone bu loxoom si te mën a bokk ki mag ndab jërëjëf sa njàngale moomu njàngale mu baax la mais dama ne la comme bor bor la fay moom fay la la comme comme taxaw ne këtt na yoon fa damay fay dëggam déet ah. moo eggal tey am naa boru koor dama koy fay ma lekk tey am naa boru koor dama koy fay loolu yàlla bind ko fenn yàlla daf ne boo juumee lekk mhm. ah mhm. dangay continuer sa koor. waaw mais boobu après da nga koy fay ndax may na la bonus boobu après bu koor gi jeexee nga fay ko. ah bu koor gi jeexee ma fay ko. waaw léegi nu ñuy def dimbali ma dama jël ma lekk. déedéet man dama dama la yónni. ñaan boo ko continuer di nga ci am yiw yu bëri yiw yu barke. te yoo xam nga kilifa ku la fekk fi ngay def day foog ne dangaa wóorul wala te gis nga fan yëpp kër gi ñu ngi naan dang dooy wóor affaire yi ngant dañ dem ngant ma dal. waa te gis nga yooyu mamita vidéo bi mu yor affaire te bu ñëwee. mamita daa yor vidéo. vidéo bu mu la vidéo ba ngay lekk caagri bi su ko wanee peer dina garaaw de. dina ko woon man gisuma ko damaa dégg ma koy wax bàyyi na woon sama xarit nga ci kër gi fii sama xarit nga fi bul lekk. moo gën de nga continuer timis léegi mu jot ñu dog ak jàmm te tey saa nag ay ganaar yu bax la ñuy dogoo. jërëjëf te boo dogee doo ci dogu de. jërëjëf nga defaral nga reer de. jërëjëf defal noonu nga. dëgg la nekk si jàmm moo bàyyi nga fiixlu jërëjëf nekk si jàmm dégg ah, baax la de di jaaram tey nag ko ah, xaar nu man comme du ma si benn effort amul benn coono gu ma si daj tey comme damay fay bor bor bu ma war a fay am fu may lekkee amul fu ma naane koor gi yëpp dama koy nelaw waaw su ma paree na ma fay sama waxtu julli tey koorum nelaw la tey xaaral sax ma dëpp man yi laa ko fas yéene jàppee nii ba koor gi jeex yaay buur bi tax ñu jaa mu di sàkku ci yow